sax de dañ ne woon du ko jar waaye farata farata la tudd dëgg dëgg la tudd pas pas pas pas la tudd dëggu dëggu la tudd waaye yabaate yabaate yabaate la tudd xëy na sax jarul kàddu yi di gudd ñu ne dañoo bett dañuy bañ ñu ne dañoo bett dafa am baat bu may faral di wax ndax def gi lu ma ñor damay wax ni àdduna bi dañuy jaawale tribunal ak justice ñaari bokk ndax tribunal bis bu nekk nga dem ñu jàpp ko deful daal tëj ko ne ko raap ay ati at bis bu nekk ñu jël ki nga xam ne lu yàqu moo ko yàq ñu ko demal doxi sa soxla defoo dara kon nag loolu justice tribunal ndax justice ci loxo yàlla la nekk xaaru ci accordu kenn seetu ci intérêt wu kenn xoolu ci arrangement wu kenn justice mën na la fekk ci mbedd bi ngay dox mën na la fekk ci lalu jàmbur na fay def lu jaaduwul mën na la fekk sa diggu laal ngay nelaw yàlla moom seetu ci loolu yëpp li ko góor gi mësee jàngale yàlla xamul li war li jot la xam yàlla xamal li wat lu jot la xam hmm. am na nag loo xam ni buñ yaakaare ne ay dof lañ ko seqal xamuñ ne xew ndax waxuma sama góor yi waaye ñun rek am na luñ xam ndax dañ ne daa wax mu dañ ah déet dañ def naan am na loo xam ne suñu kanam la conférence de presse ba woon ca mairie ba ñu ñoom fa waaye yóbbante nga am mm-hmm. gannaaw waxtaan nga ak la fa góor gi wax mm-hmm. est-ce que xam nañu ko ah. seen soi-disant kilifa ba muy yóbbante di sarax ne nañ nañu sarax mm-hmm. li mu wax bu ko def ndax bu ko defee réew mi tàkk te àtt nañu ko loolu est-ce que yëg nañu ko est-ce que wax nañu ko est-ce que bëgg nañ mu jib suñu kanam la barki démb moo njaay élection yi passé la wax élection yi passé lay wax te yow mii sama seede ne fi mhm. xanaa du élection yi passé lañ yóbbante ci man mhm. Alioune Badara Diop directeur Xolaat dikku leen jege ñu ni mu wàññi ñu pas-pas ñu jàppoon ne moo nekk ci moom waaye Sénégal lañ nekk mhm. naa fekk mooy sport national naa fekk mooy sport national moo tax bu ñu demee coupe du monde di fa liggéey daal ndax ñëpp a naqe daf ma jot téléphone ne maa gëj nañu gisee ma ne ko jamono xam mu ne bés sàngam ba xam dina féex ma ne waa ah, ñu xool ñu gisee toog mu ne maa ah, man de dama xaw a jaaxle ma ne ko ci laa noonu. mu ne ma bu ñuy mujj jotante téléphone ma ne ko waaw mu ne ma dama coupé ak yow 30 minutes Mansour Faye woo ministre Mansour Faye laa wax bëgguma ñuy nekk fi naan Mansour bële laaj bële lu leer naa ngi laa wax lii may wax nag ku koy wee dina xam li muy def xam mu ne ma daf ma woo ne ma yow dafa mel ni sa diggante capitaine Rattax mu ne ma daf ma ko wax ma jaaxle may xam na rek comédie yi daf ma ko wax ma jaaxle ma jàpp ni xëy na sa téléphone lañ mettre sous écoute ma ne ko loolu du at yi at yàgg du lu bees ci ñun xam nañ ko mu ne ma ba ma waxee loolu ba pare daf ma ci tegal ni ma président moo newoon nañ la yóbbante ci moom pour nga wax ko ni ko nañ leen sarax ñaar ba ñetti député billahi wa kitaabi mu ne ma ndax moom ci boppam xam nga ne ñi ñu am comme député wóolu leen loo wóolu leen ndax sérieux wuñu moom a ma ko wax mieux que dafa woo Mansour Faye téléphone whatsapp sama kanam jox ma ko passeport boobu Mansour Faye moo ngi ndax ma Badara Diop moo ma wax ni boobu yaayam dafa ba ñu évacué ko indi pour faju mu passe ma ko téléphone mooy mu répété ma la même chose kon nag seen coow yooyu dañ ko teg ci suuf dañ ko teg ci suuf am na loo xam ne ñun tëddewuñu ko am na loo xam ci réew mi ñun tëddewuñu am na loo xam ne ci réew mi ragal nañu fukki nit mun naa ci attaque mun naa ci àll continent doom kon nag kii def xalaat wax ji nag du sore bañ ko ne dañoo bett rek bañ ko ne dañoo bett rek ndax nag eh, wax jooju Serigne Cheikh waxoon ni réew mi buñ ko sangul sangee ko deret buñ bëggee xam nu mu mel rek nañ ci dàggoo yi boo leen xamoon niñ ci sawar di ngeen nuuti li ngeen di def boo leen xamoon niñ ci sawaree di ngeen li suñu yax sax moo ngi xasa ci jàmm lañ ñu yàq ci jàmm lañ ñu yàq teggin lañ yar waaye yàlla xam na ni lañ mën ci àll nit ak lor dugg nañ ci ñun rek seen xam nga ne soxli xew li ñuy wax nag lu ñu ñeme la lu ñu gëm la ku ko ñeme rek nañ ci ànd def ndax damay wax lu nit du jël bakkan bakkan kenn du ko jël da ngay am loo gëm mm-hmm. sa morom am lu mu gëm mm-hmm. nga jël sa bakken joxe mm-hmm. moom mu jël bakkenam joxe ku sa conviction ëpp sa morom nag sa compétence ëpp sa morom mooy jël ñaari ñu nag suñu bos bañ ko joxee yàgg na ay xoote la rek ay xoote rek kon nag boo demee on s'en fout on s'en fout lii ñu wax nag duñ ko gëmee baax duñ ko gëmul l'essentiel daal nañ laa ko gisee ñun la ñu def pare nañ ko yàgg na buñ ci dugg rek pare nañ buñ ko ñemee pare nañ buñ ko ñemewul pare nañ nag wax jaa ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah